بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وكن معيزا لنا من شر حصد مع شر فم وشر العين الله وشر سحر وشر الخلق إنسهم مع جنهم وزوات سمي الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه إقوى في الله السلام عليكم ورحمة الله مبوك جلدي mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane ak lépp lu mu jaboote di tàmbalee si turu suñu borom subhaanahu wa taala di ko sant di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo boo xam ne nii jàmm la làmboo ak yërmande ak barke di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yal nako def ci yéen ta def ko ci mbollem gox julli di bu ko defé comme niñu ko xamé insha Allah rabbi mu doon ben émission bo xamé ni fassiyé nañ ko andé ge insha allah ci sen télévision Dunya Production di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla nañ ci suñu borom subhanahu wa taala defal ak jàppandal turu émission bi nag ñi ngi ko tudde mina zulumaati ila nuur mooy juge ci lëndëm jëm ci leer moo tax incha allahu rabbi comme que bii mooy suñu émission bu njëkk ci loolu rek lañu ñu bëgg a waxtaan ak li nga xam ne ni tamit moo ñu poussé ngir ñu mën a jariñante ci yéen ci diggante émission bi nga xam ne nii bu am solo la mbokk yi xam ngeen ne suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran bu tedd bi fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifa li yatafaqahu fi ddin wa li ida rajau ilayhim laallahum yaxzaruun suñu borom subhanahu wa day wax ci biir alquran mu ne ci biir julli di na am ñoo xam ni nañu jàngi génn dem sàkku ji xam-xam waaye bu ñu sàkku jee nag ñëw nañu jariñ ñeneen ñi kon loolu ku ko dégg ku ne képp ku génn jàngi boo dellu seeg jàmm war ngaa jariñ kon loolu doon na loo xam ne nii moo ñu poussé ngir ñu jariñanteeg yéen waaye ginnaaw loolu tamit yonent bi sallallahu alayhi wa day wax ne na ngeen jottale ci man doonte benn laaya la balligu anni walaw aaya te dafa bokk ci tegginu sàkku xam-xam mooy nit ki bu koy wut na ci ànd ak yéene rafet fexe ba yëkkati ak réer ci boppam ak yeneen doomu aadama yi kon boo xamee ba pare la nga xam la mu néew néew war nga ko xamale ndax sunu borom subhanahu wa taala da koo teg ci ndoddam képp koo xam nii yor nga xam wala képp koo xam nii ab jullit nga ñaareel bi tamit mooy wala ñetteel mooy ad difa an sharia mooy jullit bi fu mu toll war na di défendre shariatul islamia ni ko suñu borom subhanahu wa taala wàccee jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa war koo leeral lépp ñu war koo tënk ci alkitaabu wa sunna waaye timit bokk na ci timit mooy nga doon koo xam da ngay yaatu dënn yaatu dënn mën a jëflanteen ñëpp mën a muñ ñépp loolu ni ñu ko waxe boo demee ci Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mi koy wax ne nit ki bu demee bay sàkku xam-xam war na ci jiital ñeent bi jiitu mooy génn ci réer ñaareel bi mooy jariñ ci mbindeefi suñu boromi yi subhaanahu wa ñetteel bi mooy dundal xam-xam ñeenteel bi mooy la mu xame mu jëfe ko kon ci gàttal bu ñu tënkee lii bokk na ci li nga xam ne ni moo ñu poussé ngir ñu fas yéenee jariñanteeg yéen ci émission bi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla defal tawféex beneen bi tamit comme ni ñu ko waxee tamit mu tombe waat tamit ñu nekk ci weeru tedd di weeru koor ndax ab jullit lépp lu muy def su weeru koor ñëwee war na koo fulaat loola tamit puuse waa ñu ginnaaw bi leen ci ziyaare di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla na yàlla nangu sunuy koor nangu sunuy julli nangu suñu xeetu jaamu yàlla yépp waaye di ñaan sunu borom subhanahu wa taala sunu mbokki julli yi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe yàlla na leen yàlla xettali te dimbale leen bokk na ci suñu mbokk réew yooyu ni ñu xamee koor nu góor góorlu xam ne mbiru suñu borom la subhanahu wa taala ndax nee na man maa moom koor te maa koy fay ëllëg as saw mu lii wa ana ajzi bi yàlla ñu ko suñu borom subhanahu wa taala fayal te nangul nu suñuy koor te defal nu tawféex beneen bi comme ni ñu ko xamee émission bi ñu ngi ko tudde mina zulumaat ila nuur mooy dañuy jóge ci lëndëm jëm ci leer buñ lëndëm nag mooy baat bi jubluwuñ ci comme lëndëm kiris wala leer comme ab lampe waaye buñ ne lëndëm baat bu ñuy àbb la ñu jub ci lan mooy ak réer buñ leer mooy ak njub ndax sallallahu alayhi wa sallam bim fi ñëwee wala bépp sunu borom subhanahu wa bépp yónnent bu mu mos a lan mooy taxawaayam mooy fexe jële nit ñi ci lëndëm jëmaleen ci leeg ak leer wala jëmale leen jëmale maanaam jële nit ñi ci ak ndëng jëmale leen ci li nga xam ne mooy ak njub kon émission bi non lañ ko tudde di ñaan yàlla na tour wuy borom di leen ci sàkku ñaan yéen ñëpp ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal ci tawfiq motax sunu borom subhanahu wa taala day wax ci alquran di wax ne alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد sunu borom subhanahu wa taala day wax na yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wacc na ci yow alquran way lan motax mu wacc ko muy objectif bi moy nga fexe jële nit ñi ci ak lëndëm jëmlé leen ci ak ci ak lèr jële nit ñi ci ak rër jëmlé leen ci ak ci ak njub motax mom sallallahu alayhi wa sallam bi mu tàmbalee wooteem bi bu am solo boobu bi mu ñëwee Makka am na lum mu fa fekkoon muy environnement bu lëndëm crise waaye bi mu ñëwee tàmbalee wooteem bi ndànk-ndànk nga xam ne dafa ñëw doon ab docteur boo xam ne nii dafa fas yéenee faj tawat yi fi nekkoon di ak réer ak yeneen ak yeneen waaye boobu am na ay xale yoo xam ne ni gëmoon nañu ko topp ko waaye xale yooyu dañoo seetlu ne bi ñu tàmbalee gëm sallallahu alayhi wa sallam am na ay jikko yoo xam ne moom lañu ñu làmboo woon di ak lëndëm wala ak ndëng waaye sallallahu alayhi wa sallam dindi na ci loola ci ñoom moo tax ñu jël ci benn muy alhijratu ila alxabasha mooy ñoom ñooñu def nan benn gàddaay mooy jóge makkatal mukarram dem dëkk bu ñuy wax éthiopie muy habasha am na buur bu fa nekkoon ñu koy tudde najashi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee makka lor yi tàmbalee bari ci julli ci ci julli di waajuram woowu di abu taalib yaroon ko wàcc ab liggéey bin leeni lor mënta défendre jullit yi ndax métti na amul kàttan te am na lu mu bëgg ci nit ñi mooy teg leen ci ak jub mu woo leen ba mu ñëw ne leen dama bëgg ngeen jóge màkka ngeen dem Éthiopie su ngeen demee am na buur bu maandu bu fa ne buur bu baax ngeen toog foofa ba sunu borom subhanahu wa indiwaat jàmm wala indil nu doole ñooñe bi ñuy dem na ñaari gàddaay la bu njëkk bi ak ñaareel bi waaye bu ñu jëlee ñaareel bi ci tënk comme ni ñu ko waxoon ab lim bu bari la bokk na ci juróom-ñett fukk nit ak ñett ci ay góor ak fukk ak juróom-ñeent ci ay jigéen waaye ci biir loolu xañ na du ñu mën a tudd ñëpp waaye am na ku ci bokk ñax Jaafar ibnu Abi Talib muy jaafar moomu doomi abi talib la ndax buñ fàtte abu talib moo yar sallallahu alayhi wa sallam bi ñu demee am na benn soxna bu bokkoon ci délégation bi ci gàddaay googu ñu koy tudd ummu salama radiyallahu anha moom mooy wax ne lamma nazalna bi ñu wàccee ci suuf ci xabasa bin fa wàccee fekk nañ fa ay dëkkandoo yu baax ñu bàyyi ñoog suñu diine nan ñu doon lore ca màkkatal mu karam bi ñu ñëwee fii na coona ba méttee ca màkk rek sedde na ko ci Habasha ci gàttal muy Éthiopie waaye bi loolu amee ñu jékki-jékki nag ndax xale yi bi ñu demee ba génn seen waajur yi di mag yi taalibe yi nga xam ne nii walla seen waajur yi nekk biir màkka di yéeféeri ci lan ne comme que xale yi dem nan nan leen toppi jëli leen indi leen keroog bi ñu demee nag ñu yabal ñaari góor kenn ki mooy Amr ibn al keneen ki di Abla ibn Abi Rabia bi ñu ñëwee ñu ñëw ba Éthiopie ñu gën a woon a jegeeg buur bi ñu jox leen ay neexal ne leen am na xale yu dugg seen réew mii di Habasha dañoo bëgg dañ leen jël si ay xale yu doflan lan tàmbalee fi indi am njàngale moo xam ne nii xamuñu ko woon ñu ñëw fii nag sun waajur yi yónni pour ñu jël si leen yéen nag jox nañ leen neexal yi yéen ñu jege buur bi saa bu ñu teexawee ci kanamu buur bi suñu waxee rek na ngeen nu dëggal te jàppale nu bi loolu amee ñoom ñu ñëw waaye bi ñu ñëwee wax ak buur bi ne ko ah si sa biir réew mii de am na xale yu fi ñëw ay dof lan yu yaradiku lan indi nañ fi njàngale moo xam ne nii seeni baay xamuñ ko woon seeni maam xamuñ ko woon ñu yabaloon na nag pour ñu jël si leen waaye bi mu waxee loolu comme que Najaashi sallallahu alayhi wa sallam seedeel na na buur bu maandu la buur bu baax la mu ne leen ah wax ngeen de waaye bala ma leen a jébbal xale yi danaa leen woo laaj leen lan moo fi seeni tànk bim leen woowee ñu def délégation ñoom ñëpp jël jaafar ne ko yow yaay suñu porte parole yaay wax ci suñu tur ah Najaashi laaj leen ne leen yéen lan moo waral ngeen tàqalikook seeni waajur ñëw fii lu fi seeni tànk li ñu soxla foofu mooy lëndëm gi ni mu ñëwee ni ko leer gi dàqee koro xale boobu moo wax di jafar ñu baal ma ci kàddu gi sax di saxaaba boobu radiyallahu anhu di jaafar ne ayuhal malik yow buur bii di najaasi kunna qawman ahla jahiliya doon noon ay nit ñoo xam ne dañoo réeroon nekk ci ak lëndëm naabudul asnaam dan doon jaamu ay xërëm wa naakulul maytata di lekk medd wa naxtil fawaish di def bon wa naqtaawul arxaam di dog ak bokk wa nusiil jaar di lor suñuy dëkkandoo ku ëpp suñun suñu moroom ku ëpp sa moroom doole dóor yërmaande amuñu ko woon ñu nekk ci loolu rek nekk ci kon loolu ñu tudd lépp mooy boo seetloo jaamu xërëm lekk médd def lu bon lor ay dëkkandoo ku man sa moroom duma loolu buñ ko xoolee lan la ak lëndëm la waaye bi ñu nekkee ci jëf ju bon jooju nga xam ne mooy jubadi gi di lëndëm gi di zulumaat gi nga xam ne mina zulumaat doon jàmm la ay lëndëm yu bari la ñu jékki-jékki rek xataa baasallahu ilayna rasula yàlla jékki-jékki rek yónni ci ñun ab yónnent yónnent boobu nag bi mu ñëwee xam nan ko xam nañ ci askan wu mu bokk xam nañ ak dëggoom xam nañ ak lewatam xam nañ ak njubam fa daana ilallahi li nu waxida mu wooñu pour ñu ñëw kennal sunu borom subhanahu wa taala ñu futteeku bàyyi lépp lu bon mooy lëndëm gi ñu nekkoon ñu jóge fa fas yéenee dugg ci ak leer jubadi gi ñu nekkoon ñu jóge fa fas yéenee dugg ci li nga xam ne mooy ak njub bi ñu nekkee ci loolu nag bàyyi li suñ doon def muy jaamu xërëm yin doon def ak xeer yin doon jaamu waaye yonent boobu dikkee nag dafa am lu mu digal wa amarana bi sidqil xadiis kon ak lënd ma nga foon doon fen di wax lu daaw dëgg bi mu dikkee mun a ñoo eh dama bëgg ngeen ni wax dëgg wa adaal amaana sàmm kóllëre dan doon dog ak bokk mun a wasilat rox mooy ne dee leen jokk ak bokk daanal lor dëkkandoo mun a dee leen rafetal jëm ci ak dëkkandoo muy wax xusnul jiwaar bun daa def lu bon mooy wal kafu anil maharim wa maa nin doon tuure deret di def lépp moom sallallahu alayhi wa sallam nag mu tere ñu loolu lépp bokk na ci lim ñu tere tamit moom sallallahu alayhi wa sallam wax wax ju bon tere nañu ne bu leen lekk alalu jirim bu leen yàq derab kenn waaye mu digal ñu nañu nañu jaamu yàlla te buñ ko bokkaale kenn waaye loolu doyut moom sallallahu alayhi wa sallam mu digal ñuy julli digal ñu ñuy génne azaka digal ñu ñuy woor comme ni ñu fi nekkee moom sallallahu alayhi wa sallam bim ñu waxee loolu nag fa saddaqnaahu mooy gëm nañu ko dëggal nañu ko wa amanna bi wa tabaanaa ala ma jaa bihi min allah mooy lim ñu indil te mu jële ko ci suñu borom subhanahu wa di nuur di leer di huda di njub ñu topp ko ñu tàmbalee nag jaamu yàlla fa abadna allaha waxda mooy ñu jaamu sunu borom subhanahu wa taala moom kase fole nushrik bihi shay'a duñ ko bokkaale kenn waaye ñu xaraamal lépp lu yàlla xaraamal daganal lépp lu yàlla daganal bi ñu nekkee nag ci situation boobu mooy jóge ci lëndëm gi jëm ci leer gi moom si lañu mag sunu bàyyi tàmbalee di ñu di ñu fitnaal di ñu dóor ngir ñu jóge ci diine jooju jëm ci diine ju ñu nekkoon muy diine réer bi loolu amee nag moom moo ñu digal nañu ñu fas yéene ñëw ci yow ndax yow buur bu maandu nga pour nga làq ñu bismillahi rrahmani rrahim alif كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد جرمين جف مبقي نيو ديل سوات كم نيو كو خامي جناو بنيو دفع تومبو بنجك بي فسيني àggalanteeg yéen ci tombum ñaareel bi ba léegi ñi ngi nekk ci yéen di waxtaan ak yéen ci dëgg-dëgg lu tax ñu tànn baat bii di mina zulumaati ila nuur loola nag ñu fas yéene koo jël di ko nettali ci sallallahu alayhi wa sallam ko defe woon ndax mbokk xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sunu boroom subhanahu wa da koo yónni ngir mu mottali jikko yu rafet yi kon jikko yu bon yi fi nekkoon mooy lan mooy lëndëm di ak juba di jikko yi fi nekk yim fi bëgg installé nag mooy lan mooy jikko yu rafet moo tax bi ko sunu borom subhanahu wa di tagg lam ko tagge mooy wa innaka la ala xulqin adim moo tax moom moom mu ne innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaq comme ni leen ko nettalee ci tomb bu njëkk bi ñuy jégglu ci dog-dog bi ci lii xam ne nii moom la xale yi def di waxi jaafar ju daw yaram jooju te ñu tolloon ñun de doonoon nan ay xale yoo xam ne nii walla ay nit yoo xam ne nii dañoo réeroon daa jaamu ay xërëm di lekk médd di def bon di ko wax di doog ak bokk di lor dëkkandoo ku nekk boo ëppee sa moroom doole woon ko ko amuñun woon yërmande ñu nekkoon ci environnement bu lëndëm boobu bu jubadi boobu bi loolu amee nag xataa baasallahu ilayna rasula ñu jékki-jékki rek sunu borom subhanahu wa taala yabal ci ñun ab yonnint yónneent bi nag bi mu ñëwee xam nañu ko ci askan wi mu bokk tudd Muhammad Abdullahi doon waajuram wu góor Amina doon waajuram wu jigéen waaye yemut ci askan wi rek xam nañ ak dëggoom lépp lu muy woote ci ak mbaax moo ci jiitu xam nañ ak kóoliteem xam nañ ak ndëggoom waaye moom bim ñu woowee fa daana ilallahi li nu daf noo woo ngir nu kennal sunu borom subhanahu wa taala ndax li ñu xamoon mooy jaamu yeneen yàlla yu bari futteeku fas yéenee génn ci lépp loo xam ne nii lu bon la woon ci li nga xam ne moom la nekkoon ñun ak sunuy baay di jaamu ay xeer aki i xërëm waaye loolu doyut wa amar naa wa amarana bi sidqil xadis bin fi nekkee daanan wax lu dul dëgg moom bi mu dikkee lan la ñu jàngal mooy fu ñu toll nañuy wax dëgg adaayil amaana mooy fexe ba sàmm kóllëre jokk ak bokk fonk dëkkandoo di rafetal jëm ci moom di moytandiku lépp lu bon waaye tamit bàyyi tuur deret tere nañu buñ wax lu suñu yoon newut bu ñu lekk alalu jirim bu ñu yàq deru jigéen ñi nga xam ne nii dañuy def lu baax bi ñu nekkee ci loolu nag ñu topp ndigalam loolu wa amar naa an naabudallaha waxda laa nushrik bihi shay'a mu digalu nañu nañu jaamu yàlla te buñ ko bokkaale kenn loolu doyatul wa amar naa bi salaa moom digal nañu ñuy julli digal nañu ñuy natt asaka digal nañu ñuy woor comme ni ko xamee ndax ndigalu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee nag fa saddaqnaahu gëm nañu ko dëggal nañu ko topp nañu ko ñu dañ bàyyi lépp loo xam ne lu xaraam la waaye nag fas yéenee def lépp loo xam ne lu dagan la kon bu ñu xoolee li jiitu ci wax ji mooy sallallahu alayhi wa sallam li jiitu muy ñëw lam fekkoon mooy ak lëndëm muy zulumaat googu muy zulumaat di di jamu mu annas saalim lim fi installé mooy ak nuur di benn di mufrat kon dañuy wax ne yoon yu jubadi ay yoon yu bëri la waaye bu dee dëgg nag ak leer ak njub wenn dong la muy kalimatu nuur bi amee nag bi ñu tàmbalee soppeeku sunu mag ñi tàmbalee di ñu lor nga xam ne misaal mi may joxe bokk na ci lor yi ni mu mettee Ammaar ibni Yaasir radiyallahu anhu koroog nin ko lore di ko dóor dóor yu bar lor waajuram wu jigéen ba yóbbu ab bakkanam waajuram wu góor di yaasir ñu dóor ku dóor yu metti di soxna soosu njëkk a wàccab liggéey ci lislaam di sumayya waaye koroog sallallahu alayhi wa sallam lim leen wax rek mooy sabran ala yaasir fa inna mawidakumul janna ay waay muñ leen na ngeen xam ne ëllëg seenab dig mooy aljanna ah lor yi nag métti na mu ne nañu ñëw ci yow mii najaashi ndax buur bu ku ñeme dëgg nga ñu toog ci yow nga teenu ba jàmm dellusi bi loolu amee nag sunu mag ñi yabal fi ñi ñu bëgg ñu ci jël si waaye foofu dañuy wax ne li gën a am solo moom jaafar bi mu waxee loolu najaasi na ko yow sa yónnent boobu ndax am na lu yàlla yónni ci moom am na lu ko yàlla jox ndax lim ko wax yow dan laa tànn ñëw ci sa dëkk ndax xam nañ sa njub xam nañ sa fonk dëkkandoo doo tooñ kenn ku nekk la mu moom danga ko koy jox fa qaala lahu najashi hal maaka ma jaa an illahi shay fa qaala la jaafar naam ndax yow seen yónnent boobu sunu borom subhanahu am na lu ko jox mu ne ko waaw mu ne ko loola mooy lan mu ne ko mooy alquranul karim mu ne ko ndax mokkal nga ci dara ndax mokkal nga ci dara jaafar na ko mokkal naa ci dara kay mu ne ko taril ma nga xam ne foofu dafa doy waar bu doon jamono ji mën naa la wax ne Najaashi bu doon suñu jamonoy tey ji mën naa taxaw taxawaay bu ëpp ni taxawaayu Macky Sall bu dee jaafar mën naa la xale bala boo xam ni rek maanaam ñu baal ma ci baatub xale bi sax koo xam ne nii dafa dugg ci lislaam doon ndaw taxaw ci kanamu buur nga xam ne dafa mel na tey ab sénégalais xale boo xam ne dafa taxaw ci kanamu Macky Sall war a def benn discours. mu ne ko ndax mokkal nga dara mu ne ko waaw mokkal naa dara mu ne ko taril ma kon nag bi mu ko taree moom jaafar mu tànn saar wu ñuy wax suuratu Maryam ndax arab day wax na li kulli makanin maqal ndax bobu najasi nasaran la ñom isa lañ gëm di jeji ta alquran amna lu mu wax ci mom mu ne ko waawaw téere boobu ñu wàcc ci moom de muy alquran te bu leen comme ni ma leen ko waxee ci tàmbali bi lan moo tax yàlla wàcc alquran ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy fexe yàlla wàcc ci moom alquran ji ngir mu mën a jële nit ñi ci ak lëndëm jëmale leen ci ak leer jëme nit ñi ci ak jubadi jëmale nañ ci li nga xam ne mooy ak jub comme ni ko wax ci suratu ibrahim alif lam ra kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumaat ila nuur bi idni rabbihim ila sirati alaziz alhamid bi mu waxee loolu nag comme ni ñu ko waxee mooy téere bii di alquran sunu boroom wàcce na ko ci yow muhammad mais nan mooy objectif wàcce bi mooy ngir nga jële nit ki ak lëndëm jëm leen ci ak ci ak leer ci ndigalu suñu borom subhanahu wa moom ila siratil aziz al muy yoon wi nga xam ne nii muy aji ku tedd ki doon aji ku nga xam ni mooy kii sant ki ku ñu war a sant gi di subhanahu wa wa taala ndeysaan bi jaafar taxawee nag wax waxam jooju tari saar wii di suuratu Maryam lan la wax bim ne ko ndax mokkal nga dara ci alxuraan ji mu naam mokkal naa ci dara mu ne ko taril ma mu tari mu taree ne kaaf ha yaa in zikru rahmati rabbika abduhu zakariya iz naada rabbahu nidaan qafiya قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا نقم بمو تامبلي سار ويرك نجاشي دفو تامبلي دي جوي أم سلمة مينت لإسوار بنانا نجاشي دفو جوي دي جوي بسكنم بيتوي قب برنغاني دي تورو ña ko waroon jege woon buur bi sax nee na danoo jooy ba fëy yi ñu tiimoon dafa tooy xepp ci xale boobu kon sellul aka neexoon tey ñun jullit yi pas-pas boobu ñu am ko dëggu gi mooy fexe ba jóge ci lëndëm gi jëm ci leer gi ba saa bu ñuy taxaw di jottali njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam loola mën a dugg Najaashi nag bi mu jooyee ndeysaan ba noppi jaafaru tarifa lu am solo jii di alquraan yi lan la wax ah yéen ñaar ñii de na ngeen xam ne li fi seeni tànk mooy jël si xale yi du ngeen ko fi mën a am ah li fi nekk daal ba nekk fi mooy xale yi daal fii laa leen yi téye ba saa bëggee delluwaat fa ñu jëm ñu delluwaat kon mbokk yi boo xoolee histoire bi ni ma ko tënk mooy lima ma si jublu mooy sallallahu alayhi wa sallam kon lo rek mo don mission waye don mission yonenti don mission sahaba yi waye timit kep koy ab julli timit loolu mo wara don suñu mission mbok yi korok sallallahu alayhi wa sallam bi mu defee ci adjam tàggatoom gu mujju gi dafa yëkkati loxom bu tedd ba ne hal balaghtu ndax jotal naa saxaaba yi ridwanullahi taala nako jotal nga kay yow sallallahu alayhi wa sallam waaye la mu waxoon mooy fal yu balligh al xaadir al gaaib ñi fi teew suñu demee nañu jottalal ñi fi teewut kon mbokk yi lii rek mooy li nga xam ne nii tey moom lañ la leen indil ci turu émission bi ak limu mu làmboo di sant ñëpp ah, di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di sàkku ñaan ci yéen tamit ngeen ñaanal suñu borom subhanahu wa taala defal ak jàppandal ci émission bi nga xam ne tudde nañ ko mina zulumaati ila nuur mooy juge ci lëndam jëm ci leer wala juge ci ak dëng jëm ci ak njub di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla defal tawfiq yàlla na sunu borom subhanahu wa taala nangu sunuy koor yàlla na suñu borom subhanahu wa taala tàppe sunuy xol yàlla na suñu borom subhanahu wa taala faj suñuy way wopp yàlla na suñu borom subhanahu wa taala faj aajo yépp ja'alana allahu min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ